aussi su ko acquitté baax na mais de toute façon Ousmane moom le président Ousmane Sonko moom il sait très bien que euh, voie bii mu jëm nii tant les conditions ne sont pas pour une justice équitable du voie ba nga xam ni soo fi demee tey say sa ay droit yow.